na jaayi xayri ma nabaat mbokk yi Touba ca kanam du laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam la ñu wax gannaaw ndigal li nga xam ne ni jot nañ ko ci Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér sàkku ci ñoom ci njiital Serigne Abibou ñu jàppale ko ci ndox mi ndax am na ci jaaxle Serigne Abibou Mbacké dajale mboolem kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci ndox mi Maou Rahmati OFOR RETEL ak képp koo xam ne jàpp nga ne mën nga ci ndox mi dara rawatina nag kuréel gi nga xam ne moo lëkkale plombier yi mbokk mbokk yi xam ngeen ne tuyau yi toj ci mbedd yi te kenn du ko defar plombier yi nee nañ bokk na ci li nga xam ne moo gën a tax ndox mi ñàkk ñu ne kon nañ dooree liggéey bi foofu jëm ca kanam ci la ñu limal nag mboolem jumtukaay yi nga xam ne danañ ko yitte woo ay tuyau trois cent quinze ngi ci deux cent ngi ci deux cent cinquante ngi ci soixante trois ngi ci ay joint jubot ay mamelon ay collier ak wan yi nga xam ne gis ngeen ko mbokk yi muy ay wan yu yees tàq nañu ko plombier yi waxee woon noonee rek la ko Touba ca kanam jëndee waaye ci seeni ñaari téeméer mbokk yi ngir ñun ñëpp ñu xam ne ndox mi ñëpp ci war a jàpp rawatina nag coo toj nekk ci mbedd yi di yendoo tuuru di fanaanee tuuru te nit ñi di bëgg a dee ak mar lii bokk na ci li nga xam ne ak njëlbeen moo koy saafara bagage yi nag yegg si na mbokk yi mu ngi nii ba salli min al fujjaari waa nun malaali bi ma injaari rabbi min nanan muajjala جالبة لمدى مؤجلا يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخريم إليك وعدك فررت من سواك فكن بساك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسر الخيرات في هذا البلد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 ولتخرنا بفعل ما أبتا ولتكفنا في لما أبختا ولا تكن مبتليا منا هرا بما ليس يتيح يا سمان kon nag mbokk yi yéen a ko gisandoo lii la plombier yi waxoon bu ko Touba ca kanam faggoo danañ leen jàppale ci xeex cuu yu yi nga xam ne dafa nekk ci mbeddi Touba yi ndox mi di walangaan kenn du ko jëriñoo kon mbokk yi ndox maa ngoog na ci ñëpp jàpp ndax kat taxaw ndoxum Touba warteef la ci képp kuy murit Touba ca kanam nag faggu na numéro boo xam ne ni képp ku ci woote foo gis coow bi toj danañu ñëw incha allah saafara ko ak ñi nga xam ne ñooy plombier yi 77 307 28 28 77 307 28 28 fu waay gis tuyau bu toj ndox may wala ngaan ci mbedd yi te kenn mënu ko jëriñoo wooteel ndax kat jumtukaay yi looloo tax ñu jënd ko seeni ñaar téeméer lañu ko jëndee ngir lan jëfe ndigal li sëriñ bi wax ne Touba ca kanam jàppale leen Maawu Rahmati ànd leen ak ñi nga xam ne ñoo yore ndox mi jàppale leen ngir lan ñu wàññi jafe-jafe ndox mi nga xam ne am na ci dëkk bu sell bii di Touba kon nag warteef la ci képp kuy mburit warteef la ci képp ku bëgg lu baax rawatina ñi dëkk ci dëkk bu selli bii di Touba ñu jàpp ci kuréel gii di taxaw ndoxum Touba wa maskani salli min al fujjaari wa nun nalaali bi